loo gis am na bu amee tàmbali rek dina am fu mu mës a yem mm. eh, pouvoir du président Macky am na fu mu tàmbali. jeex na am na fu mu nar a yem. léegi nag à nous tous nañu am liñ ci jàngat. Mm-hmm. gis nga Camara dafa peindre en année deux mille vingt trois bëri na désordre. Mm-hmm. bëri na désordre. Mm-hmm. désordre bi li ko waral lépp mooy administration bi ñu soofantal. gis nga administration du institution wu caaxaan. du institution wu caaxaan. donte nag ces agents de l'État yi nekk dans l'administration civile dans l'administration centrale ñu ñu war a jaajëfal a ngi noonu. ay jàmbar faq tëdd a ngi noonu. fii Sénégal bu ñuy waxee jàmbaar rek on pense aux militaires il y a yoo xam ne dans ils sont dans l'administration parfois ñu ngi liggéey dans des conditions extrêmement difficiles. Hmm. et ci côté boobu le président Macky Sall def na ci pàcc bu am solo en revalorisant les salaire Mmh. en revalorisant les salaires ak mat a bàyyi xel. il a beaucoup fait mais doomu aadama c'est lépp dadul mot parce que yow sa bopp yaa matul. Mm-hmm. beneen bi mooy ci administration boobu il faut qu'on en arrive à la dépolitisation lépp lu ko indil mooy notre administration est très politique. très politique c'est ça. xam nga si on dit le lion c'est l'emblème de notre pays <coughs> c'est pas le lion en tant que qu'animal sauvage déedéet mm-hmm. c'est les quatre principes fondamentaux sur lesquels repose notre administration yooyu lañ fa rappeler mm-hmm. muy la loyauté L l'impartialité I mm-hmm. l'objectivité O la neutralité N mais chaîne bi nga xam ne ñeenti maillon yii ñoo ko tëgg naka lay un fonctionnaire un agent de l'État naka nga koy mën a dundalee naka nga ko mën a dundale nga am benn feuilleté politique boo xam ne dafa fës Souleymane Ndéné Ndiaye da nga ko tudd sànq il était premier ministre mhm. am suñu benn camarade de promotion bu wàcc liggéey il était avec lui mhm. feu Daouda kamara yàlla na ko yàlla yërëm mhm. bi ñu tëralee Daouda kamara balaa ñu koy jullee def seede yi Souleymane Ndéné Ndiaye a dit tey la mës a xam Daouda Camara et de la LDMPT musuma ko won musu ko wone dans ses œuvres de service public mais ana agent de l'État yooyu mhm. ana fonctionnaire yooyu il faut qu'on en arrive à dépolitiser notre administration on a entendu le président Macky Sall dire à ses directeurs généraux su ngeen ñàkkee ma ma wàcce leen mhm. c'est dangereux mhm. voilà le péril de notre administration mmh. et c'est l'institution bi nga xam ne tey moom moo survivre à tous les régimes suñu sàgganee ba administration bi nërmeelu maare tey taal ci des bëreetul pour mu nërmeel loolu laa bëggoon li ma c'est à déplorer administration Sénégal non il faut qu'on la dépolitise wax